démarré ce matin par la région de Thiès. Nous sommes allés à Tuaon et ici de manière symbolique, nous avons planté 699 euh, arbres. Euh, je dis bien, c'est un symbole. Et nous avons sensibilisé davantage euh, les populations pour qu'elles s'impliquent davantage sur cette action euh, qui est le reboisement euh, au niveau des axes routiers mais également au niveau des axes autoroutiers. ginnaaw bu ñu amalee journée de reboisement fii ci région bi ci Tivaouane ak Ndiassane tàmbali nañu euh, sunu campagne bi nga xam ne euh, war nañu dem ci région yëpp ñu tàmbali ko tey dans la région de Thiès. ñu samp fii lu toll 699 garab. mais li ñu gis nii population yi seen bopp. ñoom ñoo jóg euh, jigéen ñii ñu fekk fii euh, fas nañu yéene laxasaayu euh, bépp garab bi ñu jëmbat fii ñoom ñoo koy arrosé toppatoo ko donc jëmbat garab lu baax la waaye toppatoo ko lu am solo la